salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani hala maahin maal absa wa safar salaatu في كل سار وفي ظفر حماني ألا ماهن ما الأبس والسفر ñu ngi dellu di santaal borom bi subhaanahu wa taala di julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu di ziar bokk yëpp di ziar taalibi maam Cheikh Ahmad di ko jaarale ci Cheikh Mamadul Muntaha di ñaan borom bi subhaanahu wa taala yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér tey nag nu ngi fii toog ci daaru Tanzir ci kër kenn ci réew mi bëgg lool maam Cheikh Ahmad Xaadim Rasul bëgg lool Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soppeem ba mu sëriñ Basiru Fall Njaaxa kenn ku ci nekk xam ni mu mel ci réew mi tey nag muy waajal màggal gi ci fii nga xam ni mooy daaru Tanzil ci këram gi nga xam ni fi lay woote dong nga yegg soppee xarit yeeg wóllëre ñëpp di ko fi fekk kon yaakaar naa ni duma sori damay jox sëriñ bi rek mu nuyoo ñi nga xam ne ni mooy waa àdduna ñi koy fas yéene seytaan ci télévision bu mu munti doon ngir wàccaay màggal gi ak bis bi nga xam ni mooy màggal gi. waaw barakatu mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñu ngi leen di nuyu comme sëñ Amadou ni nga ko waxee noonu la demee di sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi sangu ñëpp di gërëm Serigne Touba. di wax ni comme ni nga ko waxee rek noonu la tey jii ñoo ngi Touba ci Daaru Tansil di waaj a màggal màggalu xaadimu rasul màggal nag ni ko ni ko sëriñ bi waxee woon ci gàmmu rek daan la noon noonu la demee ndax gàmmu moom daf ni woon tanzimu bi sunnati yàqu naal jannati maanaam koo xam ni màggal nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam te teg ko ci sunna dalay womat bu dugal àjjana kazaalika nag xaalimam bii di xaalimu rasul moom it képp koo xam ne da koo màggal te teg ko ci sunna dana la yóbbu baajana waaye ni ñuy màggale nag ñu ngi koy waajal bu baax ñun fas ci yéenee def teraanga yu bari ndax sëriñ bi moo ko jàngaloon maanaam ni ñuy màggale moom mooy maanaam ni ñuy ni ñuy ni ñuy ni ñuy màggale moom mooy di teral doomu aadama yi te ñu fonk julli ak fonk salaatu alnabi yoor yoor bi rawatina salaatu alnabi yu bari ñu di ko liggéey jëmee ko ci bi sallallahu alayhi sant la ko yàlla sëriñ bi ba noppi nag ak teraanga yu baree baree bari yoo xam ne waajal nañ ko ci yoo xam ne ay teraanga yoo xam ne jullit yi rek a tax ñu def ko ñu di ko waajal incha allahu rabbil alamin nii daal sëriñ Amadou noonu lañ bëgg a waajale màggal gi incha allah. ñooy ñëw ci dëkk bi te xam ne dëkk bi dëkk worma la. ñooñu ñooñu li ma wax mooy a ah, ku dëkk ci dëkk worma kay moom worma kay moom tënkal na boppam mooy nga ànd ko ak yar ànd ak teggin ànd ak worma te ànd ak sell te ngay ñëw di màggal si teg ko ci sunna rek te ànd ko ragal yàlla ak ak bëgg yonent bi ak nangoo jaamu yàlla te nangoo jaamu yàlla nag laay wax ndax Sëñ Tuubaa nag daf ni rajaa u jannati bilaa taahaati bi sunnatil maahi xuruurun yaati maanaam yaakaar àjjana te na ngoo dem ca jàkka ja te jaare ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa ndax sa bopp la kon nag maanaam ab taalibe murit rawatina ñëpp nag laa wax waaye taalibe murit moom daa war a julli ba noonu rek ndax xam nga lu tax xaadimu rasul jamono yi muy jël gaal gi di dem ma Gabon bi mu egsee ba ci digg géej gi te waxtu tàkkusaan jot tubaab bi daf ko santage daf ko ni sama gaal moom du doo ci julli sans bateau xaw ma nooy nooy def nag moom ci boppam xamle na ni bi muy wàcc ci bateau bi di dem di tàbbi ci ndox mi yonent bi sallallahu alayhi garanti lu ko dara kenn wax ko dara waaye comme lii moo taxoon ñu bind ko wa maa xalaqtul jinna wal insa bu liya'buduni mu ni kon naa naa naa def sama devoir daal di julli tàkkusaan daal di wàcc ci géej gi suñu borom ndax suñu borom ku am fulla la maanaam ku yéex a intervenir lay doon maanaam dernier moment la yàlla di intervenir looloo tax maam Ibrahima biñ ko indilee doomam mu war koo rendi ren na ba teg baax ba yaakaar ne ñàkk na gestu soog a gis doomam jamono yu ne nag yàlla képp ku ànd ak moom te gëmoo doo jàll ndax moom dernier moment lay intervenir maanaam sëriñ bi itam bi mu gëmee ni lii rekk tax ñu indi ko fi mu wàcc tànkam teg ci ndox mi booba moom julli ak muur la yemale suñ borom intervenir mu taxaw julli maanaam koo xam nag sëb sëriñ jaay na bakkanam ngir julli yow ko noo war a def danga war a julli ba nor te woy waa ngi nii ma lay bëgg a wax nag rajaa u jannati bila bi sunnatil maahi xuruurun yaati Sëñ Tuubaa lii la bind kon nag ñun ñi nga xam ne dañ koy yaakaar ñëpp laa wax de ñëpp war a nangoo jaamu waaye ñun dañoo war a jaamu ba nor ngir roy man nag noonu laa fas yéene dunde incha allahu rabbil alamin waaw euh, sëñ Bassirou Fall xam naa ne sax jamono coow léeg-léeg coow politique am yow di nga politique. waaw waaw man damay politique waaw. ah yow koy politique ah? man. Ah. sama parti. fuy sa parti Seydina Mouhamed sallallahu ah, man yent bi saa sama képp képp mooy sama parti ndax kere ba ma xamee ni an nafu wa durru min arrahmaani laysa min al biidaani wa soodaani ca laa noppee jox sama mbir nit ca laa xamee ni nit yorul mbir yi sëñ Tuubaa leer leer na ko ba tey a naf ni ki njariñ mi nu bëgg nun wa durru ak lor mi nu ragal ñi ñaar mi na raxmaani mi ngi ci yàlla mi bindee te diglu nag lay sa minal bii daani wa soodaani nekkul ci ko weex nekkul ci ko ñuul kon man ñépp war a doyloo yàlla waaye maa ci raw man mii nga xam ni suñ borom daf maa ganewaale àdduna ak silmaxa waaye teewul ma xam ni ismullahil azam mii nga xam ni ci la ñëpp lu jariñu loolu njàccaaru mënu koo dàq ko du gis loolu moo waral lii yàlla may ma ko ci ma di ko ci sant di ko ci gërëm nag te di ko ci wéetal te fas yéene sax ci ay ndigalam te moytu ay teram kasaalika ni ko Serigne tubaa santaane woon mooy képp koo xam ni Serigne Touba moom lépp lu la waaye man di wax ci moom boo ko lambee ci sunna saa sama boo ko lambee ci alxuraan gisoo ko ci lamb lamb ko ci sunna saa sama gisoo ko ci luñ ci yokk la waaye loolu bokk ci Sëñ Tuubaa moom yàlla képp yonent bi saa sama moom mus ko génn dafa spécial moom Sëñ Muntaxaa moom moom sëriñ sëpp jàmbaar lañu waaye cey moom ndax moom jaamu yàlla dong nga ko ñor yonent bi saa sama dong nga ko ñor Sëñ Tuubaa dong nga ko ñor xasaayit dong nga ko ñor fas nu yéene nag mënunoo mënunu fa mu teg tànkam mu teg ko fa waaye fas nañu yéene bokk di topp te fa mu teg tànkam luñ ca man ñu di ko ci def donte moom avion la nuy nuy nuy raam nu jéem a raam rek waaw nit nii daal lañ ko bëgg a doxale waaw waaw jërëjëf. waxee sëriñ bi waxee ah ci wàccaay bi nga xam ne mooy wàccaay màggal gi ak bisu màggal gi nga xam ne nii la maam Cheikh Ahmad Bamba waxoon rek moom la waxaat tey génn ko benn yoon te xam nañ kii di sëriñ mun taxaa tamit ci yoon woowu rek la teg taaliba yi ndax moom ku ko xam xam ni bu sañoon tey taalibe yëpp Serigne Touba ñu nangul leen ñu doon fa tabaarak seenuk taalibe kon nag ñu ngi ñaanal sëñ Mountakha Bachir mu yàgg fi lool Mbàkke te mu ànd ak wér di ñaanal tamit sëñ Bachir ndax wax na ko léegi koo xam ni yow yàlla daf la wàccewaale ci kaa daaru dunya ak silmaxa waaye nga wëlbatiku nangu ko taxawee taxawaay bu ma sëkk bay mën a teral ay jaami yàlla kon moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko fan wu gudd mu ànd ak wér ñu teewaat ay màggal yu baree baree bari Cheikh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 في كل سار وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر والسفر